dama amoo amoo Valentine. amoo Valentine. ku bëgg. kooraa koor koor ba jëm na kaw balaa ma koy laal. ci yow laa miir man ki ma bëggantee la ngi nii di ma seetaan mi ngi nii mi ngi nii ah fan yaa ngi may gis xoolal kii ak tuutaayam naan man la bëgg. man sama Valentine lay dégg. Eh, tuuti na mais bul xam li ci biir. Dakar jàng ah, jaan tuuti na. mais kay eh, nuyool si Valentine bi nuyool si Waly Seck bi ku la neex. Waly Seck c'est-à-dire. waaw xarit. waaw maa ngi nuyu sama xarit ak sama andu jàmm yi. bàyyiwoo kenn bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn sama frère yëpp. ak sama siste yi ak sama mbokk yëpp. waaw doy na merci beaucoup léegi nag gis nga mi ngi nii spécial Saint-Valentin tey nii rek lañ ko doxalee nee naa leen euh, complexe Sofia boo bëggee coiffure bu baax da ngay dem ca moom boo bëggee cheveux naturel bu baax da ngay dem ca complexe Anna moom mooy nees séeri baay yaayu bébé Ngom bébé damay juum yaayu bébé ndaw léegi yóbbu ma si yi looloo ma intéressé ba pare